mbokk yi daw si leen gaaw si centre Darou Salam boo leen ñëwee di ngeen fa fekk Ibrahima Khalil Niang muy messin traditionnel bu yàlla may mu man li muy def lool da nga amee faiblesse sexuelle mu sonal la si sa wàllu sëy boo jëflanteeg Ibrahima Khalil Niang rek sa jàngoro day daal di saafarawu da nga amee éjaculation précoce di néew kattan booy sëy boo jëflanteeg Ibrahima Khalil Niang rek sa jàngoro dina daal di saafarawu mbokk yi xam ngeen na awra bu dëgërul dafay yëngal néegu sëy yi te boo jëflanteeg moom rek sa awra dina mel na melatoon dëgër ba booy def say farata nga defee ko ca anam ya mu waree mbokk yi xam ngeen ne sperme bu oyofee dalay tere am doom loolu Ibrahima Khalil Niass suñu boroom may na ko si dina la faj ba nga wér ba da ngay toog si ruqu sant yàlla bu baax a baax bu fekkee ni da nga sentir na sa awra day commencé dellu di gën di ndaw loolee tamit suñu borom may na ko si Ibrahima Khalil Niass médecin traditionnel bu mag suñu borom may ko ay may yu am solo Daaru Salaam Ibrahima Khalil ñaa fan nga nekk ñu ne ñu ngi fi nga xam ne moom moo di Suprême Excitation si côté agence su Tigo bi ah mbokk yi daw si leen foofu numéro téléphone bi ñaata la mu ne numéro baa ngi noonu mën nga woote si 78 309 42 42 78 309 42 42 daw si leen gaaw si centre Daaru Salaam. asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñi ngi delluwaat di nuyuwaat ñëpp di ziyaaraat ñëpp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñooy suivre chaîne bii di lu xew TV di kontaan trop ki yéen gis nañ appel yi encouragement yi et tout ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen rappeler encore que numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro service commercial. képp ku am looy jàllale soit bu fekkente ni da ngay jaay bëgg li ngay jaay ñépp gis ko ñu jàllale ko ci YouTube bi mën nga ñu contacter su fekkee aussi dafa am histoire boo xam te ni da nga ko dund bëggoon ko partager ak nit ñi ndax xëy na partage boobu nga koy partager ak nit ñi dina am ñoo xam te ni dina leen yee ci benn côté bi donc képp koo xam ne soxla nga ñu mën nga ñu contacter ci numéro bii di affiché donc tey vidéo bi ñuy def. dafa nekk vidéo boo xam ne pour sénégalais yi nga xam ne ñi ngi dund bitim réew parce que démb après vidéo am na tagee bi bi ñu xoolee commentaire yi gis nañ ci ay réaction yu bëri am na ci ñoo xam te ni si ñi ngi dëggal li am na tagee wax mais bu weesoo commentaire yi dañ ci jot ay message ñoo xam te dañu confirmer carrément que li am na tagee wax dëgg la donc parmi témoignage yooyu ñu jot incha allahu am na ci yoo xam te ne si dinañ ko traité ñu dugalal leen ko man nag du ma juge te àttewu ma du ma jox kenn dëgg mais li nga xam te ne loolu la ñu jox comme information te ñi koy joxe dañ ci ànd ak conviction wane nañu ñoom kat lii ñoom ñu ko dund du luñ leen nettali du luñ dégg fenn dafa doon luñ dund. donc du ma ne Albert Bokandé liñ koy jiiñ moo def wala deful mais en tout cas li nga xam ni moom la ñu nit ñi wax loolu la ñuy jàllale ci kàttanu borom bi. parce que jot nañ ci ay audio yoo xamante ne si nit ñi ñu ngi dëggal que sénégalais yi la dund bitim réew métti na trop kilifa envoyé na ma message di mbàkke mbàkke di confirmer que sénégalais yi li ñuy dund bitim réew métti na également moom audio bi nga xamante ne def na ko ci li mu gis dafa doon def tournée am lu mu gis audio boobu ci kàttanu borom bi dina leen ko dugalal. donc tey sunu vidéo ça concerne les immigrés. donc ku gisul tamit. dégg nga li nga xam te ne moom la doomu sénégalais di dund ci biti tey fii ñaata sénégalais lañu dégg ñu ne faat nañ leen ci bitim réew ñaata sénégalais lañ fi faat ci Italie Espagne ak yeneen dëkk Libye bi ngeen di dégg ñaata sénégalais ñoom ñoo ko doon souffrir ba ci Liban bi nga xam ne moom lañ dégg am na tëggee démb mu doon nettali la mu fa dund. te am na ñeneen ñu ma envoyé message ni ma même Liban boobu noonu ña fa nekk ñu ngi souffrir ba léegi nii. alors ñun suñu gouvernement lan la ñuy xaar ci loolu pour dimbali seen doom yi nga xam te ne ñoo nekk bitim réew di fa souffrir ñoom demuñu foofu pour taxawaal demuñu foofu def lu bon dañu dem pour daan seen doole am lu ñu mën a dimbalee seen njaboot am lu ñu mën a dimbalee seeni waajur li ñu def noonu moo gën fuuf toogoon ci dëkk bi di def na ko sudul noonu wala toogoon ci dëkk bi di xëy di tëdd ko jóg dañoo dem daani seen doole donc ñooñu jar jàppale lañ et dañu seetlu benn affaire souvent ñoom bu ñu fa amee problème problème bi du mujj fenn parce que d'habitude Sénégal yi ñu faat yépp bitim réew du mujj fenn et pourtant ce qui en est sûr si fois nit ku weex dikkoon Sénégal ba ñu def ko fi dara lu ndaw su boobaa suñu njiit yi ci boppam ñoom ñooy njëkk a jóg taxaw di ko jëlal paar man je me demande complexe boobu ñu am envers les blancs lu tax et pourtant dañuy wax que ne ñun nous sommes indépendants alors que ba léegi ci service su nit ku weex la ñuy daw lu mu bëgg sunum réew loolu mooy am te ñun lu ñu bëgg seen réew bala ñu koo jot dañuy daw ba dee wala sax duñ ci jot complexe boobu moo war a deñ ci ñun sénégalais. alors ñu bàyyi leen ngeen déglu benn extrait boo xam ne moom lañu jëlee ci benn témoignage bu benn sénégalaise def moom mu ngi Liban ba léegi ñu bàyyi leen ngeen déglu ko ñu dikk continuer waxtaan. mais lenn rek laa ci mën a tegaat. muy suñu gouvernement Sénégal dañoo war a seet ci yàlla jàppale sénégalais yi nekk Liban te xam ne sonn nañ tey suñu sañoo ñu toog ci suñu réew waaye li ma metti da ngay jooytu sa problème ñu naan yéen sénégalais da ngeen bëgg a tukki da ngeen bëgg a tukki dangeen ngeen bëgg mais du question bëgg a tukki munoo nekk soutien de famille ba pare. say famille yaakaar la yow nga toog di leen xool da ngay uti yoon boo amee ba teral leen parce que naar yi ci seen bopp ñu ngi fii Sénégal fees fa dell te bu ñu amoon lu ñu bëgg duñ jóge ci seen dëkk dem dem Sénégal kon fii du ñun sénégalais rek ñooy def immigré ñëppay immigré mais nekk dem immigré taxul nag ñun luñ la teg nga ne dañ la ko war a teg parce que yaa fa dem déedéet bu doon Sénégal amul benn immigré kon buñ ñun suñu bopp bu ñu demee immigré ji mun nañu wax ne da ngeen bëgg da ngeen bëgg voyage mais du loolu. ku nekk fi yàlla ni tudd sa destin da nga ko fay def kon ñun nañ ñu gestu surtout gouvernement Sénégal mais Sénégal dañoo yaakaar ne xamuñ sax ne ay sénégalais yi ñu ngi yewoo Liban te pourtant ay sénégalais ñu ngi yeewoo Liban fees fi dell di dund lu métti nag te ay jàmbaar a fi nekk jigéenu Liban kenn gënu leen jigéenu Liban kenn gënu leen ay muñkat lañ ay jàmbaar lañ parce que naar yi ku nekk xam nga ne nekk ak ñoom neexul ci seen condition seen seen seen seen loi dëkk yombul te ñu ngi fi di ko dund kon liñ lu ñu soxla mooy suñu droit lu ñu soxla mooy suñu gouvernement nañu gestu nañu nañu xool sénégal yi nekk Liban li ñuy dund ñu soutenir ñu jàppale ñu ci parce que ay citoyen lañ élection bu ñëwee dañuy voté comme ñëpp dañuy campagne comme ñëpp comme par exemple ren ren ren yi ren yi mais lu nekk daj nañ ko fi lu nekk daj nañ ko fi campagne nañ def nañ lépp ah résultat yi ñëpp am moom la ñu am. alors mbokk yi. dégg li nga xamante ni si moom la ndaw si wax lii nag benn partie la buñ jël ci témoignage bi nga xam ne moom la soxna si def te ku gisul tamit dégg nga ni dëkku naar yi li fa doomu sénégalais yi di dund metti na trop te loolu il est sunu gouvernement jóg ci parce que ñi nga xamte ni dañoo génn ay sénégalais lañ comme ñun ñi nga xam ne dañoo des ci biir réew mi donc appel bi ñuy lancé ñi nga xam te ne ñoo ñu jiite mooy ñu dimbale ñi nga xam te ne ñu ci bitim réew te yéen ñi nga xam ni aussi yéenee génn di dem bitim réew na nekk ci condition yu wóor et wax ji li ma ci gën a metti mooy souvent ñi lay témoigneel que ni dund nañ lu metti ci dëkku naari ki leen koy teg wala ñi leen koy teg seeni moroomu Sénégalais lañuy nekk tey nga nekk doomu senegal sa moroomu sénégalais ñëw ci dëkk nga war ko taxawu jàppale ko mais nga koy jël di ko jaay ngir lan alalu àdduna yow miy def loolu xanaa xalaatoon ni ëllëg da ngay sa borom alal ji lu mu bari bëri bëri doo ko yóbbaale dangay ngay dem rek ba ko fi kon li nga xam te ne du la jariñ ëllëg ci kanamu borom bi loo ciy def na doon lu leer. comme niñ ko waxe woon léegi rek yéen ñi nga xam te ne yéenee génn dem daani seen doole bu ngeen di dem na nekk ci lu wóor te ngeen bàyyi nit ku ñëw ni leen mën naa leen yóbbu rek ngeen jox ko confiance jël seen alal jox ko ba pare taxamu leen ko parce que ñu ci bari noonu lañ leen naxe soit ñu lekk seen alal wala ñu yóbbu leen ba bitim réew dinañ fa dund loolu metti alors ñu ngi lancé message boobu yéen ñi nga xam ni si seen xel nekk na ci génn bu ngeen di génn na doon ci lu leer da ngeen jaar ci yoon bu normal ngeen mën a dem ci jàmm yegg ci jàmm mën a liggéey sans am problème te waxaat aussi gouvernement Sénégal ñu jàppale seen doomu réew yi nga xam te ne ñu ngi ci biti parce que ñooñ tamit ci réew mi lañ bokk. alors tey loolu moo nekkoon sunu vidéo ñu ngi tuubaat di jégaluwaat encore une fois di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen vidéo wasala